donc lii nekkoon benn rappel pour vous faire comprendre que lu ñu dund le vendredi 2 juin suite logique la woon li xew nag dañuy am mettitu xol sax suñ koy raconter di ñaan yàlla rek di sàkku ci yéen ngeen ñaanoon ñu tamit ba période suñ koy raconter ñu bañ a topp suñu xol par rapport ak lu ñu def ndax xëy na suñu toppee suñu xol mën nañu wax lu ëpp walla suñu xol tooy yàlla nañu yàlla kàttanal dëgëral ñu ba suñu koy awma habitude di ko di ko di ko di ko raconter à chaque fois parce que ça me ça me traumatise un peu ça de mauvais souvenir mais dinañ góor góorlu ba seen teg suñu xol waxtaan ak sénégal yi lan lañ daj le vendredi 2 juin. le vendredi 2 juin dama jógee sama kër benn xarit camarade étudiant. bëgguma tudd turam parce que bëgguma koo exposé mais mi ngi fii ci salle bi ginnaaw autorité universitaire yi bu ñu jëlee décision ne dañuy tëj campus social te joxewuñu benn délai ci ñoo xamante ne ñii Tamba lañ dëkk ñii fongale mi ñu génne leen ci anam bu doy waar moom nag mu mujjee woon ñëw daw làqatu si ci benn kër frère bi nekk fii ci foir ma demoon seeti ji ko pour ma sawu ko mais tamit pour xool nu mu toogee bi ma fa toogee ba ay 22 heures di ñibbisi ñëw naa ba yegg sama koñ Liberté 6 extension bii laa dëkk comme te maa ngi woon en communication bugguma woon yéeg pour déranger ñi ma bokkal appartement ma ne xaaral ma taxaw ci suuf communiqué ba pare su ma paree ma yéeg parce que comme te xaw na guddi waruma déranger kenn fi ñu taxawee di communiquer di tàggatoo ci la ñaari scooter yi yëpp quatre nervis je pèse bien mais mots il faut retenir ça quatre nervi ñaar ñi ñooy dawal ak kenn ku ñu supporté ñi ñu supporté ñoo wàcc tellement que nu ñu taxawee may ñu ma sax échappa euh, échappatoire ndax dañ dañoo taxaw sës ma ci biir ba awma fu mu mën a daw mënuma sax daw au premier vue dama foogoon ne ay agresseur lañ mais bu ñu wàccee ba kenn téye sama tubéy comme policiers yi nu ñuy poñee tubay par derrière rek kenn ki poñe ma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 Euh, du ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour d'ailleurs looloo tax ngeen di dégg turam ci sama dossier bi parce que gendarme euh, gendarme yi bu ñu laajtee les nervis dañu ne ñun ay éléments wu Pape Malick Ndour la Ndour nduur lañ actuellement mi ngi seen TV di def émission mbelaan le vendredi 2 juin soo leen ko demee vérifier di ngeen ko gis parce que vérifier naa ko d'ailleurs j'étais même pas au courant après laaj soog a laaj vérification ñu confirmer ma ko ñu ne ñoom dañu maa jàpp man.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 bàyyi mag ñaari nervi yi ma téye yeneen ñaari nervi yi nekk ci scooter bi taal scooter bi duñ topp mais ci ginnaaw rek commencé woon nañ ma faa dóor dóor ñoom nervi yi commencé woon nañ ma faa dóor ba damaa mujjee waaxu waaxu yu dëgër dem jàpp ci benn loxo gendarme ne ko comme te vous êtes des hommes de loi yéen la loi bi permettre ngeen mën a assurer la sécurité des biens et des personnes et garantir public bu leen ma bàyyi ci loxo ñii parce que xaw ma fu may yóbbu man langaamu ci loxo gendarme ndax jaaxle ak tiit. ne ko ngir yàlla wax récupéral sama téléphone yu ñu téye ne ko ngir yàlla bu leen ma bàyyi ci loxo ñuy parce que mun nañ maa fàtt ma bi si la joxe injonction kenn ci nervi yi ne leen bu leen ko dóor bàyyi leen bu ñu yegg fële ba pare récupérer sama téléphone yi gendarme yi ñoo ko mujjee récupérer ci ci yoon bi ñu yegg si ci seen QG bi nga xamante ne quelque quelques dizaines de mètres ak fu ñu ma intercepté bu ñu bu ñu yegsee comme de gendarme yi ñoom dañoo am supérieur ki nga xamante ne moo nekkoon chef élément yi nekkoon foofu moo waral ngeen di dégg turu chef sow xaw ma sax turam ñi seetaan vidéo bi am na de sénégalais ay images yi lu ñu gis image yi choqué ñëpp waaye am na ay vidéo te dinañ ci dikkaat chef sow moomu bu ñu yegsee moom tamit naturellement il a posé la question kii kan la lan lan mooy lan moo xew. nervi yi ñooy waxaat ba léegi changé nañu version par rapport ak seen version initiale waaye changé wuñu seen présentation ils ont maintenu leur présentation en disant que nous sommes des éléments du ministre de la jeunesse ba pare ne Cheikh Sow ndax xamoo kii kii mooy Pape Abdoulaye Touré ci ñuy wax ndaw yi ñu génn di taal réew mi di attaquer nit ñi ci la bokk te pourtant seen version initiale mooy dañ maa jàpp may manifester mais bu ñu ñëwee ba ci Cheikh Sow dañoo changer version ne kii moo nekk ci réseaux sociaux yi di inciter jeunes yi à ce que ñu taal yàq réew mi ma démentir ko ci saa si ne leen loolu ñu wax amul de après beneen nervi ne fekk nañ ko sax muy wuy téléphone di jox ay instruction naan kaay leen attaqué fii ñëw leen fii kenn nekk fi ak ñoom seen ma ne ko amul de jox ma sama récupéral téléphone nga jox ma ko ma déverrouillé la ko parce que awma temps wu sax coupé sama appel suñu supprimé wul appel bi ñoom di nga gis kan laa doon waxal mu jox ma mu ubbil ko téléphone mu dugg xool dernier appel mu xam ni loolu amut ma yemuma ci appel bi kese mu dugal ko sama page Facebook ci sama téléphone ma ne ko xoolal mu xool ma dugal ko sama WhatsApp dévrier ko dugal ko ci biir ne ko groupe yaa ngi nii bu la neex duggal nga xool ndax est-ce que bokk naa ci groupe bu ñuy taalee mu dugg xool ñaari téléphone nag laa yoroon doyen Maodo Mbodj ngi nii du ma bàyyi ma fen parce que benn téléphone bi. vu que j'étais le chargé de tout ce qui communication digital de la plateforme F24 ñoom ñoo ñoo ma joxoon benn téléphone pour li pour yombalal ma liggéey bi beneen téléphone bi nekk sama téléphone privé mais sama téléphone privé bi dañoo gis euh, euh, bu ko euh, chef Sow taalee dafa gis image yu Sonko image yu président Ousmane Sonko la gis ci ci ci ci sama fond d'écran de verrouillage rek discussion yi jeex na de amatul wax. yow lu tax nga def yow lu tax nga def Ousmane Sonko mi fond d'écran comme te man euh, apprenti juriste la te jàpp naa ni gendarme yi xëy na ay nitu yoon lañu ma ne ko ah téléphone bi maa ko moom su ma neexee def ko ma neex fond d'écran ba ci Michael Jackson sax su ma neexoon ma def ko fond d'écran Michael Jackson boobu laataa kàddu gi di daanu ci lañ ma ci la ma dugal coup boo xamante ne du ko fàtte mukk moom chef Sow ki jiite woon ma yi nekkoon foofu joxe ordre ay éléments am ne leen yóbbul leen ma ko fële ci côté mur bi dinañu wax kat moo ko yónni ñu jagat jagadee ma gendarme yi rek ci lim matoon nañ une une vingtaine wala une trentaine de gendarme nervi yi ma jàpp initialement laataa ñuy yegg ci ci QG bi romb nañ ay yeneen check point nervi yu ñëw dollee ko ci lim bi maanaam ñu ñëw sékkoon ñëpp ci gendarme ak ay nervi ci ma matoon nañ cinquante personnes ñu yóbbu ñu taf ñu ci miir bi toog loo ma ci suuf ma toog ñu ne kan moo la yónni ma ne kan moo ma yónni ci lan parce que nit suñ ko yónnee dafay am objectif yónni ci lan ba léegi ils sont incapables dama diir dire yónni ci lii ma ne leen kenn yónniwu ma xëy na dañoo bëggoon ma ne Ousmane Sonko ma yónni pour ñu mën ko dem jëli ma ne kenn yónniwu ma sama buntu kër laa taxaw di wuyu sama téléphone et que j'ai am naa am naa ci droit dóor yi commencé. kan moo la yónni tel tel tel tel kan moo la yónni tel tel tel tel duma ma duma yi méttee métti bu ma juddoo sama ndey ak sama baay ba léegi mosumaa gis duma yu mel noonu waxuma la ma dund ko man de mais mosumaa gis kuñ ko duma dumawee jël seen ay tonfa mooy seen baton yooyu nga xamante ne dafa dëgër amuñu sens interdit ci sama yaram kanam bopp nopp bët fépp lañ doon dóor damaa baare baare ba looloo indi sama fracture bii ci sama loxo bi ndax ay barre pour bañ coups yi pour wàññi effet coups yi ci au niveau de mon de mon visage et sur ñuy dóor di dóor dem naa ba benn moment su ma so bu ma sonnee pour ma mën a jëlaat tuuti air pour mën a nooy nooyiwaat tuuti ci vidéo yi ñu ko seetaan mën nañ ko confirmer maa ngi doon naan chef sow ndax mën naa wax chef sow ma wax parce que jàpp naa ni su ma waxee loolu chef bi dina arrêté loo élément am yu ma nekk di dóor pour mën maa déglu léegi saa su ma waxee loolu day arrêté day wax gars yi arrêté léegi arrêté boobu temps boobu ñuy arrêté muy ay quelques secondes dama ciy profité waat xaw a jëlaale air tuuti. ma ne ko ndax dëgg nga bëgg dégg wala dangaa bëgg ma fen la mu ne ma wax ma dëgg bi ma ne ko dëgg bi mooy kenn yónniwu ma kenn yónniwu ma jox naa la sama téléphone vérifié nga kenn yónniwu ma j'avais librement amee préoccupation ñu jàppam mu ne acawaat. gars yi commencé dóor man daal dóor nañ ma ba benn moment di fàttali ne 23h maa ngi ci ay loxo maa ngi ci seen loxo déjà ba presque 2 heures moins te amul benn moment bu ma toog noppalu amut 23h ba 2 heures moins 2 heures du matin ñu ngi may torturer après ci laa jékki say parce que dañoo bëri wër ma nervi yeeg gendarme yëpp. ñoo ànd def coalition doon ma torturer donc ñu ñi wax ni Pape Abdoulaye Touré ay nerveux ko torturer ils n'ont pas amu euh, wax nañ dëgg ñi wax ni tamit Pape Abdoulaye Touré ay gendarme ñoo ko torturer wax nañu dëgg ndaxte ñaari identité yi ñoo def coalition doon ma torturer biñ may dóor flash yaa ngi tàkk gisatuma dara parce que projecteur yi sama bët bi man daal maa ngi baare rek man daal maa jekki saay gis xaaju birig bu ñu ma sànni mu jóge ci ginnaaw gendarme yi ñëw ci man moo waral sama bopp bi xaroon bi ñu ma dóoree birig bi ma ma ma tombé dans l'inconscience ma xëm li ma gë li ci gën a metti mooy bi ma xëmee taxul ñu arrêté taxul ñu tiit taxul ñu raf dañu profité ci xëm boobu ma xëm ñu dóor ma ay monot mooy monot yooyu ngeen di gis ci image seere monote te période bi ñu may monote fekk na damm na monat yeeg damm damm wi lañ boole seere ko bu mu dëgër monaté ma par derrière monaté wuñ ma sax devant kon ma mën a protéger wu par derrière lañ ma monaté am nag ak accès total ci sama tête ci sama kanam ci sama bopp ak ci sama articulation def ma dos au sol ñoom seen ay terme la parce dégg naa lañ ñu koy wax mettre leen ko doo au sol maanaam jaaxaan loo ma biñ ma jaaxaan loowee bi muy ximiliku dama fekk benn ma kenn ci ñoom sa jël seen ram jésu diis yooyu wallaahi fii la ma ko teg ci baat ci diggante dënn beeg baat bi pour neutraliser sama bopp jeté au sol ma gis ñaari ma ku nekk jàpp sa ñaari loxo bu mu dëgër sama ñaari tànk yi ñeneen ñi wër ñu ki jëloon tànkam teg ko ci sama baat bi dafa jël gutu 10 litres def ci ndox def ci suuf suuf boobu ngeen doon gis ci sama yaram ci image yi boobu la parce que xam naa bëgg nañ ma yee xam nañ ne xam naa bëgg nañ ma yee ñu jaaxaan loo ma di ma sotti gutu 10 litres bi ak suuf si muy dugg sama gémmiñ dugg sama ay bët fees dell ci sama ay nopp man bu muy ximmiliku wallaahi al azim damaa fogoon ni maa ngi dañ ma dañ ma mujjee tëmbal ci géej ba dem maa ngi nekk di lab pour man dama nekk di noyé ah, bu may ximmilu ko te man dama amee traumatisme boobu parce que j'ai failli me noyer deux fois moo tax bu ma ximmilikoo dama foog ne dañ ma sànni sax ci géej gi buñ ma sottee ndox ba ma ximmiliku ñu yëkkatiwaat ma tafaat ma ci miir bi kan moo la yónni kenn yónniwu ma ñu continuer waat di dóor di dóor ci ay articulation sama tànk yi dañ ko mujjee tàllal dama toog ñu ne ma tàllalal sa ay tànk ba ma tàllal ko genre ma taxaw xaj ci tonfa ba loxom bi sës mu dóor ci tànk yi looloo indi fracture bi ci tànk yi dafa dóor a dóor ba su ma bankee samay tànk ci genou yi lay dóor ñu duma ma duma yu méttee méttee métti dans de conditions atroces yu ñu mel bi ma demee ba sonn ma ne leen waa léegi est-ce que doo la ma rey ndax ma noppalu kenn ci gendarme yi génnee pistolet teg ko sama bopp ne ma ndax ñu ñu rey ci manifestation yi depuis de 2020 ak léegi yaa leen gën ne ma soo waxul ku la ku la yónnee dañ lay rey te du mujj fenn parce que ñu ñu rey ba léegi mujjul fenn lii gendarme moo ko wax et je défie la gendarmerie nationale de du général Moussa Fall ma moom wax lii teg ma pistolet ci bopp après bi ñu ma dóoree dóor a dóor dóor ci biir groupe bi ma doon dóor gis naa benn petit groupe bu doon décalé di sori group bu ma doon dóor mais bu ñuy dem kenn mu ngi laaj keneen ki ndax essence bi ñëw na bu ma déggee moo essence damaa foogoon ne nag ci seen mboto yi lañ ko war a sol wala ci seen oto yi mais ndekete essence bi beneen finalité la woon te buñ ñu jàppee ba yóbbu ñu cave ci laa daje benn kenn ku ñu jàpp mu expliqué ma ne ma fu ñu la doon dóoree sama cousin fa dëkk sama cousin moo ma wax ci noppam sama gémmiñ ci gémmiñam sama nopp mu ne leen amoon na groupe ci ñenn ñu ma doon dóor yu ñëwoon ci côté fenêtre am di laajte ndax essence bi ñëw na lan mooy jumtu lan mooy jubluwaay bi pour ñu taal ma après ñu ne man damaa bëggoon taal benn kër responsable ma mal manœuvrer essence bi far mu jàpp ma ma lakk lii moo nekkoon seen objectif li tentative de meurtre la yàllaa ma dimbali de wallaahi ak taxawaayu sénégalais yi ak ñaan ñi nga xamante ne xëy na xamuma leen sax ak sama ay ñaanu waajur moo tax tey ma gàddu sama bakkan ba toog di jàkkaarloog yéen di waxtaan di leen nettali tragédie bi nga xamante ne dund naa ko ci sama propre dëkk après dóor yi bu mu méttiwee ñu seen am benn gendarme bu séen kenn ci voisin yu nekk foofu mu taxaw ci fenêtre am ci kaw ci étage bi di filmer taal flash am flash boobu la ñu seen mu daw ñëw si ne est-ce duñu wàññi dóor yi parce que am na ko commencé filmer quoi sinon dinañ ci am problème kooku noonu xaw ma ko de xaw ma kan la waaye xamal ni man Pape Abdoulaye Touré su ma toogee fii di nooy ba léegi ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sama ay ñaari wéjur ñaar yu ñu ma doon ñaanal mm-hmm. kookoo tax ndax bu ñu gisee caméra yi bu ñu gisee flash boobu ci la ñu wàññi dóor yi ba pare jël décision à partir de ce moment ne dañu may yóbbu commissariat brigade bu Foire ñu liggéey ma par derrière un citoyen sénégalais sans défense de surcroît un étudiant amul benn arme ci moom fekk ñu dara ci man à part sama téléphone ak sama portefeuille amul leneen. benn élément bu bu ma mën a compromettant bu ñu fekk ci man ñu monote ma par derrière non seulement monote nañ ma amatuma benn défense ñu jàpp ma di ma brutaliser di ma torturer torturer yu méttee méttee métti après ci lañu indi seen pick bi ñu yeb ma ci ginnaaw sànni ma ci ginnaaw comme xar man maanaam tabaski su jotee da ngeen di gis ay xar yu ñuy takk sànni leen ci ginnaaw quate sambar comme noonu la ñu ma def d'ailleurs am na photo bu may. bu buy wane kii bi sama kanam feeñu ci am na image yu ma ci gis photo boobu ci biir pick bi la noonu lañ ma sànnee ci ginnaaw waaye bu ñu ma sànnee ci ginnaaw am na en attendant ñuy régler dañ ko yóbbu fii nañ ko kii ñuy suivre ay instruction ñenn ci gendarme yi dañoo continuer di ma torturer ba ci ginnaaw pick bi am na yenn soo ay sio yoo xamante ne couvert bi pour nga tëj ko day am benn verre benn benn weñ bu muy àndal nga xam da koy da koy kii waaw gis nga verre boobu xam nga day kii kii bi weñ boobu day dindeeku wallahi al azim weñ boobu lañ dindi la benn ma dindi fekk mu ci biir oto bu ma koy dóor ci kanam ba dama jël sama kanam rëpp ko ci ci ci ci ci kat ci kat kat bi ci ci kii bi pour mën a rawale sama kanam ndaxte boobu temps sama kanam man xamatuma lu muy ndural ndaxte recevoir naa benn coup de pied boo xamante ne ci sama bët bi ba sama bët bi fa la jaaree woon ëfu ba ba tëju moo tax à la benn bët laa doon xoolee te bët bët coup lu tax ma jël ko mooy ci biir torture yi dafa am benn nervi bu xàll gendarme yi ñëw ba ci man jël la ko tam génnee pompe à pompe ma ko ci ay bët boobu fekk nañu sotti ma ndox ba pare ba pare imposé ma ne ma da ngay xool par force suñu foto la te pompe à baa ngi dugg sama bët amatuma usage de mes mains parce que monote nañ ma par derrière may wut fu ma làqatu ji pour bañ ñu yàq sama kanam gi ni may wut comme kaña wallahi azim di wut fu ma dem pour rawale sama kanam bàyyi leen ak sama yaram wallahi azim ci laa ci laa dajee ci benn tànk gendarme bu sol ay ramjees wallahi kuu la ma dugal bule coup de bu violent la ma dóor ci bët moo waral sama bët bi amoon ay jafe-jafe ba ci lendemain bi lañ ko mujjee lañ ko mujjee ubbi ci ophtalmologue bu nekk section de recherche bu bu Colobane nii lañ ma yégalee ci pick-up bi ci yoon bi maanaam diggante fi ñu ma jàppee Liberté 6 extension ñu jël VDN bi war a dem brigade bu Foire teewul duma yaa ngi continuer ba léegi de je vous parle de deux heures moins là on m'a appréhendé vers vingt trois heures ba deux heures mois presque une heure et demie et quelques ñu nekkoon quatre genre yi ñu ma boolee leen ci gannaaw ne ma dañuy tëdd nag ñu loo ma parce que dañ doon bañ xëy na romb ay manifestants et tout ça. ñu mën ma xàmmee ñu attaqué leen ñu tëddaloo ma ci oto bi continuer di ma dóor dóor yi méttee metti ba mujj gi chauffeur bi doon dawal moo wàcc moo arrêté oto bi wàcc ne ki doon ki ma doon dóor ci ginnaaw arrêté dóor yi parce que euh, su deewee dinañ am problème kooku teg tonfa bi jël ay loxoom sama sikkim yi ak sama karaw bi ma amoon ci la doon jàpp di xëcc. di buddi di jàpp di sëq di xëcc gendarme li may wax nii ay gendarme ñoo ma ko def que ça soit clair ay gendarme ñoo ma def li may wax nii ci noonu lañ ma yóbboo brigade bu foire bi ma yegsee brigade bu foire ku ko xam xam nga ni étage bi foofu ni ñuy recevoir parce que poste bi fa la nekk bu ñu yéegee ci escalier yi ba war a dugg ci poste ba fu mu ne ñu fekk fa benn gendarme bu doon ataaya ci poste bi mu jug doon joxe kaas pour dellu siwaat bu muy bu muy avant muy dellu siwaat ci yoon bi lañ daje ci couloir bi mu ne eh, kii kan la ñu ne ko kii de benn manifestant la wallahi tànkam la yëkkati ma ñi ngi ma mën a teg ci ginnaaw mu wéq ma ko ci biir ba ma am problème eh, euh, respiration ne ma loolu ba pare ne loolu mooy participation ci mbir mi gendarme ne ma sama participation ngi noonu ndaw merci beaucoup ma yegg ci ci poste gendarmerie Foire ñu jël sama ay ñaari téléphone jël sama portefeuille parce que loolu rek laa yoroon di fàttali Sénégalais yi ne kagul sax yoruma ko wallaahi lazim masque masque amuma ko woon fekk ñu dara ci man ku doon kuy manifester dina dem saa masque ak man nuñ ma xamee ci réew mi sañ naa jël risque di dem ci ay manifestation yu ñu interdire ba pare te du ma takk masque balaa ñu may xàmmee di ma rey xalaatuma ko. même bu dul loolu sax ñu ay kilifa lañu ci réew mi am na yoo xamante ne jombale nañ ko suñu bopp parce que bëgguñu koo servir d'exemple ci kaw loolu ci lañ tekkee monat yi ci condition yu metti nag ndax monat bi mi ngi fekk maa ngi damm ba loolu laal ci man day metti sama yaram bi am ay góom un peu partout bopp bi di xelli sama karaw dafa yàgg sëkk dama yàgg sëkkal karaw mais ku taxaw sax gis ma di nga gis deret bi dafa mujjee gile ci ginnaaw ànd ak karaw gi ñu daal di may tekki dindi monote yi sànn ma ci seen cellule bi ba léegi kenn waxuma vous êtes en état d'arrestation ba léegi notifié luñu ma sama garde à bu ñu dugg see ci deux heures du matin et ci la benn pick-up ñëw gaare yëpp ay gendarme yu jógee section de recherche bu fédère bu bu nekk ndakaar fii après laa koy soog xam sax gendarme bi bu euh, chef de poste bu ñëwee tijji cellule bi ak yeneen manifestants yu ma fekkoon dama tiit tellement que bu ñu ñëwee ma gis ma gis leen solu ñu tenue dama foogoon ne dañu may livre nervis pour ñu terminer le travail ma wax ñi ma bokkaloon ci cellule bi ne leen man maa ngi tudd Pape Abdoulaye Touré bokk ci mouvement Sénégal notre priorité bés boo leen ma gisatul ngir yàlla génn leen ngeen témoigner ne brigade bu foire lañ ma jëlee sànq ma parce que ñii dama jël si xaw ma leen te solo ñu tenue ba ci chef de poste bi maa ngi ko koy wax ne ko ñii ñii maa du ñu ay maa nekkul dañoo ñëw pour rey ma mu ne ma ñu ay gendarme lañu fédère bi lañu nekk dañ lay yóbbu brigade bu fédère ñu monote ma sànni ma ginnaaw pick bi encore direction brigade bu fédère bi ma yegsee ci brigade bu fédère bi lii may wax commandant bi jiite fédère bi ki nga xamante ne moo jiite fédère bi mën na koo témoigner parce que daf ko fekkoon ci ay nelaw sax moom mu wàcc jóge ci kaw wàcc bu ma yegsee bu ma gisee lu mu ma njëkk a def massa loolu la ma njëkk a wax massa massa massa ma gis benn tristesse ci kanamam bugguma koo exposé nag parce que jaral na leen ko de dem ba dàq ko mais ku baax ku am ku am ku nite gendarmerie du ñëpp bon de mais am na ñoo xamante ne mérité sol tenue Sénégal am na yenn métiers yoo xamante ne ça appartient au hommes de cœur gendarmerie ci la bokk santé ci la bokk garde pénitentiaire ci la bokk ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yow sax balaa nga koy def dañ la war a defal formation psychiatrique psychologique nga mën a wax ak nit ki mën ko aborder mën ko stabiliser. nii laa yegsee ci brigade bu Faidherbe bu commandant bi photo photo bopp yi photo fra euh, neew yi neew nekkoon ci loxo bi fracture yi photo góom yi ma gis condition yu ma ñëwee maa ngi tooy xepp mu sedd lool sama yaram bi yëpp nekk suuf mënuma je voyais à peine quoi am à moitié aveugle bu ma fotoyee ba pare mu yónnee ko ay supérieur am